carte ga nag mën nan ne leer na ba noppi li nga xam ni kat mooy demi finale gannaaw loolu di leen wax salaamaaleykum les gars di leen daal jàmm seen page bi MLK info di la ñaan yow ma li nga xam ni kat mooy cloche de notification nga xam ne benn suuf si ni vidéo dugal da nga bokk si ñu ko njëkk a am gannaaw loolu gars yi ñëw ngeen li nga xam ni kat mooy quart finale yi. quart de finale yi nag yi jeex na gannaaw équipe bi nga xam ni kat mooy Real Madrid ba fekk jee bi nga xam ni kat mooy Manchester City sa ndorteleen match ba gone Ancelotti kat daal di am 1 ba demee nag booy match bay waaj a àgg si li nga xam ne kat mooy cëppaandaw ga ci la ñi nga xam ne ñooy waa Manchester City kat daal di fay mun match bi nekk 1-1 ñi dem si li nga xam ni kat mooy supplémentaire yi. supplémentaire match bi daal di dëgërati këcc li nga xam ne nag mooy série penalty moo mujj jeex tàqale équipe bi nga xam ne kat mooy Real Madrid ak équipe nga xam ne kat mooy Manchester City ñi nga xam ni kat ñooy waa Manchester City daal di raté ñaari bal ñi nga xam ni kat ñooy waa Real Madrid daal di raté benn match bi mujj jeex li nga xam ne kat mooy 4-3 waaye kenn du càppaacoli bi nga xam ne kat mooy Rodrigo. ki nga xam ni mooy Rodrigo nag ba match bi amee douzième minute ci la daal di lakk li nga xam ni kat mooy caaxi man li ma gën a jaaxal si Rodrigo daal moom match yi nga xam ni kat match yu am importance rek ak match décisif ci la ki nga xam ni kat mooy Rodrigo daal di lakk li nga xam ni mooy caaxi ba demee nag ba ñu waaj a àgg si li nga xam ne mooy ndort ki nga xam ni kat mooy De Bruyne daal di égaliser boobu le match match bi nekk 1 ñii di waa Real Madrid nag di gone Ancelotti yi mën na ne démb kat ñii di waa Real Madrid ab train lan gaaraloon nga xam ne kat ñooy Manchester City si kan yi bu nu amee dem bu nu amul daal di taxaw waaye liggéey booba nag doon xaar Ancelotti muy liggéey bu rëy rëy ki nga xam ni kat mooy Ancelotti mën na ne réussir na kat boobale liggéey bu baax a baax baax ki nga xam ni mooy Bellingham nee na dem na ba yàgg sax mu dem ba si wetam naa ko mbaadu dangaa sonn gis naa la ngay ëbbali mu ne ko demal nga fubali ta ngeen jéem a gagné li nga xam ni kat mooy match bi ñii di waa Real Madrid nag mujj nañ réussir li nga xam ni kat mooy loolu waaye ak Valverde tamit démb match bu exceptionnel bu extraordinaire la ki nga xam ni kat mooy Valverde daal di ki nga xam ne mooy Valverde nag moo nekk li nga xam ne que mooy homme de match foofu lay sa match démb bi. Valverde nag mooy xam ne ne équipe bi nga xam ne kat mooy Manchester City équipe bu mag la te équipe bu am talent lan waaye ñoom ñii nga xam ni kat ñooy Real Madrid ñoom ñooy waa Real Madrid ba tey kenn demul mu des ki nga xam ni kat mooy gardien Real Madrid bi kat démb ñaari penalty kat la daal di jàpp mu li nga xam ni kat mooy série loolee bokk si lii tax ñii di waa Real Madrid am ndam mën a jàll si li nga xam ni kat mooy demi finale yi demi finale nag mën na ne jàpp nañ ko kon nag équipe bi nga xam ne mooy Real Madrid moo war a laale ak équipe bi nga xam ni kat mooy Bayern Monaco équipe bi nga xam ni kat mooy Borussia Dortmund war a laale équipe bi nga xam ni kat mooy Paris Saint-Germain ñu jàpp ko nag le 30 mai ak le euh, première mai le 7 mai ak le 8 mai muy retour yi. lii di waa Manchester City nag déception dëgg la na am mais Premier League ba nag depuis 2019 ak 2020 yi nii. mosuñoo raté li nga xam ne que mooy demi finale kon nag depuis deux mille dix neuf ak deux mille vingt bii mooy première fois équipe bu anglais demul li nga xam ne que mooy demi finale. ba tey ñi nga xam ne que ñooy waa Bayern Monaco ñoom tamit démb dañoo dalal ñi nga xam ne que ñooy waa Arsenal daal di leen di lonk bi ñii di waa Arsenal mënuñoo dindi boobu la bit ba taan ñi nga xam ne que ñooy waa Bayern Monaco jàll na si li nga xam ne que mooy demi finale war a daje ak équipe bi nga xam ne que mooy Real Madrid. ale Aleba équipe bi nga xam ni que mooy Bayern ko mooy dalal Real Madrid mais retour bi nag Bayern ko ñoo war a fekk équipe bi nga xam ne que mooy Real Madrid si demi finale yi. ki nga xam ni mooy Jürgen Klopp nag moom liggéey bu rëy ma xaarkat koy xaar kat ndax match aller kat mook Atalanta bu Bergamo dafa nërmeel woon 3-0 mu des li nga xam ni kat muy retour bi tam ñi mën a jàll sa demi-finale faaw dañoo war a remonter équipe bi nga xam ni kat mooy Atalanta bu Bergamo équipe bi nga xam ni mooy Liverpool nag moo war a fekk ji tey équipe bi nga xam ni kat mooy Atalanta kon nag ki nga xam ni mooy Jürgen Klopp tey liggéey bu rëy rëy ma ngi koy xaar foofu la sa Atalanta. nga xam ni kat mooy araxo arbitre bi nag carte rouge bi mu ko joxoon kat ñi nga xam ni kat ñooy waa FIFA dëggal nañ bu baax baax ne ki nga xam ni mooy arbitre bi match bu doxoon ci diggante Paris Saint-Germain ak équipe bi nga xam ni kat mooy Barcelona kat coup franc yi mu fa tiiree carton rouge beeg yëpp ak penalty bi kat ñoom nangul nañ arbitre bi kat ne loolee lépp nag lu juste la ñu jógee si loolu ñëw ngeen ki nga xam ni que mooy Joao Félix ak taxawaayam bi dafa jaal trop nag ndax moom avant match Barcelona Paris bi kat da doon wax ne demi finale kat buñ sa àggee équipe bi nga xam ne kat mooy Barcelona mooy jàkkaarloo équipe bi nga xam ne mooy Atlético Madrid équipe bi nga xam ne kat mooy City ak Arsenal ñooy dem si li nga xam ne kat mooy demi finale loole lépp nag mujj na changé far ñeneen ñi si des équipe bi nga xam ne mooy Real Madrid far moo mujj dem li nga xam ne mooy demi finale ak équipe bi nga xam ne mooy Paris Saint-Germain Bayern Monaco ak équipe bi nga xam ne mooy Borussia Dortmund jóge si loolu dese ngeen si Barcelona ba tey Barcelona entraîneur bi nga xam ne kat mooy Félix moom leen bëggoon a jël waaye instant yi kat ñii di waa Barcelona kat li nekk seen xel mooy changé li nga xam ni kat mooy décision ndax nee kat ki nga xam ni mooy Félix jeu bi mu yor méngoowul ak bi nga xam ni kat moom la waa Barcelona daal di yor waa gaa yi xam naa foofu la nga koy yemale di leen jox dig daje di la wax yow mu abonné gul nga ne nga xam ne benn su suñu vidéo kat duutul raw vidéo bu ñu dugal da nga bokk si ñu ko njëkk am jàmm si ba si beneen vidéo ak beneen argo